sant bu baax ñi fi teew ñëpp di ci jiital sunu kilifa di sëriñ Xaasim Mbàkke euh, sunu kilifa gi mu feggoon di sëriñ Bachir Moustapha Abdourahman ak mboolem kilifa yi teg ci toog ci defe naa ne li may tàmbale mooy sant bu baax docteur Abdoul Karim Diaw di sunu xarit sunu wëlële di jàppalante ci lu bari ci exposé bu am bi li ñu doon bëgg bëggoon ko ci waxtaan wi gis nañ ko bu baax a baax euh, yaakaar naa tey bu fi jógee lu baree bari ci li la ubboon ci wàllu asaka defe naa ne da nga ci am tomb yu leer loolu di sant itam respecteur di Serigne Sall Bousso bi xam ne moo doon modéré te bokk ci membre association yi am na foo xam ne bañ fa tollee ci waxtaan donc docteur Khadim Sindal ñi ko bokkaloon ñëpp ak ku wax Moustapha Guèye Bachir Faye Mouhamed Aliou Sow bañ ca tollee dañu ne dañ dem fekki sëñ Xaas Sall Bousso ñu mottale fa waxtaan xalaat rek la toll ñu jóge fii dem ba Thiès yem ak moom moo tax moom dafa bokk ci sos borom bi moo tax ñuy rafetlu bu baax moom itam taxawaayam ak ñi fa jël euh, intervention yi nga xam ne jot na fee jàll di sëriñ Xabaan ak euh, sëriñ Abdoulaye Jaxate ñu di ko muy kuy door a jóge ci jàng bi nga ku door a jóge ci jàng moom alluwa ji dana jege ñu bare bare bi ci fëtt nañ waaye moom nag di door a wér alluwa ñu ñaanal ko yàlla defal ko tawfeex ci réew mi defal ko barke ci li mu jàng te mu liggéey ci yi nañu xam ne def ci yoonu yàlla liñ ci wax sas Cheikh gi wax ko doy na sëg ci defe naa ne ko jëkk a wax mooy conférencier bi di sëñ Abdoulaye sëñ Abdou Karim euh, lu waay def daal suñu borom wutal fa mooy loo joxe lu mu tuut tuut yàlla wutal fa lu gën waaye lu baax kenn waru koo xeeb ndax ci histoire dana lu baax la gën a tuuti dugal la nit àjjana xam ngeen ne am na koo xam ne la ko dugal àjjana mooy daa fekk muus mu mar bëgg naan rek te xamul nu muy def mu fexe am naan kon loolu mooy wane ne lu baax dara jëru jàkka kon euh, samay kàddu daal liñ ci war a wax ci association bi wax nañ ko li ñu war a wax ci thème bi wax nañ ko xanaa kàddu yu cant rek la di dellu di sant waa banque islamique ne depuis deux mille huit deux mille dix ba léegi ngi am seize boo xam ne ci parcelle association bi moo ko moom di ko fay muy foo xam ne ak ah, am fa nekk itam di fa yëngu di fa toog ñu amee ko fay ndax jàpp nañ ne loolu itam lu am solo la ci am mbooloo mooy lu am fu ñuy sox kon ki ku soxla yi man faa ñëw ñi am soxla man ak yitte man faa déposé seen i waaye di sant itam euh, xam ngeen ne jotaay bii euh, bu ñu sànkee waa banque islamique directeur général bi di honor mooy waaye rawatina soxna Aminata Faye Seck moom di moo topp ci moom waaye jàppale ñu lool moom itam di fàttali ko suñu mbokk Babacar Ndoye moo doon DG bi nga xam ne ni am relation ak moom boobu moo fa nekk di xarit di wax ne jotaay bi xam ngeen ni annoncé woon nañ ne bokk na ci fi war a toog muy docteur Abdou Aziz Kébé euh, moom docteur Khadim Sylla waaye mu am yitte yu ren ba tax ñëwuñu te ñooy ñuy bokki daara waaye tudd nañ léegi ñi leen fi teewal di imam imaam Jabel maa ngi jégalu ànd ak sunu mbokku daara nga xam ne ñoo bokkoon nekk ci Égypte di docteur Abdourahman Abdourahman Kane ñoo bokkoon nekk ay ndong ci Égypte euh, kon ñu ngi sant waa délégation euh, li tax itam ñu doon taamu diggante délégation ak ak euh, autorité di wax mooy dafa mel ni ñaar rek ci réew mi. jox fi ñu structure yoo xam ne ci wàllu lislaam lañu yëngu moo taxoon ñu demoon daal lu lu daal ci wàllu xew-xewu lislaam jaar yooyu war lañu ci seen ñeneen ñëpp jig yëngatu ci leneen waaye yoon nag mën na yoon ne jox fi jox fi yooyu structure yi ànd ak état te te yëngatu ci lislaam loolu moo taxoon ñu taamu ci biir waxtaan wi ne ñoom lañuy def daal ñuy suñuy gan kilifa ci wàllu état di sant itam mbooleem bi nga xam ne yàgg nañoo jàppale association kooku nag buñ koy wax sëriñ Bachir mu sëriñ Abdou Khadir moo ci jiitu xam ngeen ne am na at moo xam ne moo ñëw fii sax euh, teewe teewal fii fii sëñ Ahmadou sëñ Sidi Mokhtar yàlla na waaye di Ba ci ñu jàpp ci boppam la daaw teewoon na fi ak jëfam waaye ren teewul ndax ak ngànt waaye ay jëfam teew na fi di sant sunu bàjjan soxna may mu sëñ Mourou Fatiha yi moom itam daana fi teew ren teewu fi waaye jëfam teew na fi ndawam it teew na fi di soxna ma si ak délégation bi àndal di délégation bu mat sëkk boo xam ne defe naa ne wecc nañ ak teewaayam kon ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di sant itam euh, ñi ñuy tuddee membre d'honneur d'honneur bi ki doon wax léegi di sëriñ dàmbaawu moo doon wax ci seen tur ñooñu nag nee nañ ma soxna maam Jaara mu sëñ Bass Moustapha mu sëñ soxna Astou Boury ñu ngi fi ci ñi ci jiitu la bokk bañ ko tàmbalee ba nga ni at mu ne loxoom dana ci dugg ku ñuy wax sëñ Cheikh Awa Balla mu noonu ay ndaw ma ngi fi teew tudd nañ ne lekk at mu ne bañ ko tàmbalee ba nëgëni Moustapha bi waaye Cheikh Abdou Gaynde Fatma mu sunu bàjjan soxna bi ali mii fi jóge bu yàggut yàlla na ko yàlla doon njëkkal ak leer Cheikh Abdou moom itam liñ njëkk a def ci social ci ci turu association bi moom moo ko joxe te bu feebaroon kon nag xëy na xew-xew yi xew tax na mënu fee teew waaye duñu dañ di fàttaliku jëfam jooju di am na ku ñuy wax Baye Modou Diop itam waxoon naa sëriñ Cheikh Fatma mu sëñ Moustapha Falilou waaye itam di wax sëñ Bachir Lo mii ci sunu wet ci membre d'honneur yi ci la bokk ak taxawaayam ak teewaayam ak jëfam sëñ dàmbaam moom waxoon nag ne moom moom ci membre d'honneur yi la waaye da cee boole yi di jàmbaar yi ci li ñuy wax compte asaka bi xam ngeen ne dañoo séddale compte yi bu nekk ak nam waaw compte yi solidarité am na waaye compte asaka dafa am ak waqf ak yeneen ak yeneen ngir ñu séparer mbir yi moom nag compte asaka boobu ku ci yàgg jëf la am ci taxawaay loolu compte asaka boobu nag moom itam duñ buñ koy tudd fokk ñu fàttaliku jëmm joo xam ne bi mu yëgee taxawaay bi daana ci jëf te yàlla moom ko muy sëriñ Seex Baara Mati yàlla ko sunu borom dolli njëggal ak yërmande waxtu wu nekk azakaam daana ci sëdd li ñuy wax association bi di Hikma waaye am na sama sunu mbokk maag di sama xarit maag sëñ sëriñ alaaji sëriñ muy sëñ Ousmane Gaye moom it at mu ne asakaam du ko génne te amuñ ci ci amuñ ci cër ak suñu ku ñuy wax Sele Jang euh, ak ñu ñuy wax sëñ Moustapha Babou di mbokkum sëñ Daam Babou ak ñam ko àndal ci Amérique at mu ne seen jëf dafay teew waaye Badara Seck wax nañ ko sànq ci suñuy partenaire la moom café gi sëñ noonu ñu doon wax léegi xam naa yaakaar naa ne tey waras naa fay ñooñu mu tudd foofu publicité bi moom waras na ko fay tubaarkàlla mën nañ ko fay fay fay nu daal fay waa association bi waaye fay ko moom ndax waxee na ko waxin wu am solo ñu ko ci jaajëfal moo ko sëriñ euh, Cheikh Anta bi mu àndal euh, di wax itam ne ñi ngi sant bu baax euh, ku ñuy wax sëñ Cheikh Bawal Diop dafa am doomam joo xam ne moo nekk Amérique ñu di ko wax Bàcc Diop Bàcc moomu ci ñuy taxaw di jàpp ci ah, ci mbir mi nag lal boobu nga xam ne dañ ko joxoon waa hôpitalu euh, la daan te muy jar vingt mille dollars moom moo ko indi woon jox ko association yi moo tax waxtu ne moom it ñu di ko tudd di ko fàttali waaye ñi ngi sant itam waa Sénégal sëñ Abdoulaye Dia ku jàpp ci association bi la waaye sax dafa am lu ñuy tuddee partenariat bu am suñu diggante ak mbooloo bi mu taxawal di yëngatu ci wàllu asaka ba léegi lépp lu muy lu ñuy defati moom ci keesu asakaam dana ci tibb jox ko waa association bi ngir ñu mën a dooleel leen loolu nag ñu di ko seereel mbooloo yépp di jëf ju rafet joo xam ne ñu ngi koy ñu ngi koy seereel mbooloo yépp di sant nag parrain bi di sëriñ Seck xam naa ne li ciy sëñ Cheikh Awa Balla Gueye wax Cheikh Anta wax ko ci ki nga xam ne moo doon wax léegi itam ci turu C3S wax ko mën a su ci teg dara ndax da li gënoon am solo rek mooy waxtu wu ne dañ doon xalaat ki ñuy tànn mbaa duñ ne nangama tax ñu tànn ko loo xam ne day dellu ci bakkan wala leneen waaye du ay jëfam waaye tey defe naa ku déglu li ñu fi wax da xam ne ki ñu tànn ay jëfam a tax ñu tànn ko waaye tànnuñ ko ci leneen te jëfam itam ñépp yëg nañu rawatina ñoon daara